carte gi mën nañu wax ne am na soppeeku ci li nga xamante ni moom mooy ci làmb ji gannaaw moom bombar Bombardier bi mu amee defet euh, ci kanamu kii di Eumeu Sène mu daan ko ñaar yoon daa mel ni ki rek xëy na moom ji objectif bi mu amoon muy jël ñetteelu yoon couronne roi des arènes dina am handicap maanaam yoon bi dana xaw a ñagas léegi nag ndagam. lii di transition bi jotul maanaam xale yi jéem a jot ci mag ñi est-ce que tey jotul ñu jàpp ne Bombardier combat bi nga xam ñu ngi koy laam laame te yàgg na diggante moom ak rëg-rëg ñorul wala bokk nit ñi ñu ngi coow diggante moom ak ak kii di Sa Thiès ndaxte keroog rakku Balla Gaye bi samp na ndëndëm diggante bombax jee ak Eumeu Sène ku daan mu mën a bëre moom est-ce que tey xale yi nga xamante ñu ngi ci yoon bi muy Sa Thiès rëg-rëg ak Ama Baldé ak ñeneen ak ñeneen waru ñoo dem ca mag ña bëreeg ñoom waaye tamit tournoi bi nga xam ne moo am seen diggante Eumeu seen Balla Gaye Bombardier Modou Lo est-ce que warut a dakk tey ndaxte ay 2-0 trois 0 wala ay 1-1 loolu dana jëmale làmb kanam am déet te boo xoolee sax yooyu la làmb bu ñu koy tëgg ca stade ba. ngir mu fees dana doon lu jafe ndaxte bés bu yàlla sàkk ñoom rek ñooy bëri seen biir léegi nag kart gi dañ ko war a tas mbir yi tasaaroo xale yi ñëw bëri ñoom làmb ji gën a neex ñu may chance xale yi waaye tamit Tafatine Bombardier est-ce que tey mën nañ wax ne làmb jooju mën naa am muy revanche bi loolu dafay des ci tafaatin bi nga xam ni ci victoire la jóge waaye itam ñu ngi coow diggante Tafatine ak kii di Lac de Guiers 2 combat boobu moo gën a ñor diggante Bombardier tafaatin wala boog ñu wax ne Bombardier ak Sa Thiès kon fi mu nekk di làmb ji wasaana te it tournoi boobu nga xam ne mi ngi am seen diggante war naa dakk ndaxte ay 2-0. un wala trois zéro loolu jëmalewul làmb kanam kon xale yi mag ñi nga xam ñoo nekk seen kanam war nañ leen may seen chance waaye tamit bombardier laaj bi nga xam ne war nañ ko samp mooy yoonam est-ce que du ñagas ndaxte léegi mu bàyyi làmb te li mu bëggoon mooy jël ñetteel yoon titre roi de arènes kon defet bii ak Eumeu Sène dina ko indil ñagas ñagas.